voilà nuyuwaat naa leen daal di leen dalal jàmm ci seen chaîne bi nga xamante ne yéen ko taamul seen bopp mu di Sénégal Buzz 221 ko xam Sénégal Buzz 221 ne saa rim tax na nag tey dañu leen indi thème boo xamante ne dafa am solo mais nee naa fan yi dafa am euh, dafa lëmbe jamono ji lëmbe fépp muy viol bi ak violence faite aux femmes ndax kenn mënatul toog benn euh, semaine wala euh, ay fan yu néew te déggoo ne am na koo xamante ne rey nañ ko fii wala violé nañ ko fële naka la ko askan wi gisee ak naka la ñu mën a def ba loolu wàññeeku wala mu jeex fi wala loolu dootuñu ko gisati fii ci suñu ndax nee naa Sénégal euh, dëkk jàmm la dëkk salaam la pays de la teranga la ñu ba tax na am na yenn yoo xamante ne bu fi am ñun xamuñu ko daf ñuy jaaxal lool damay daal di dugg ci askan wi rek daal di laaj li nga ne moo di seen xalaat comme ni ñu koy su nekk ba na sama caméraman da may topp rek daal di dugg euh, biir Médina daal di laaj rek naka la askan wi gisee li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee tey euh, tey nag ñi ngi fi nga xamante ne moo di Médina ñu fekk fii suñu benn tonton fii ci bunt atelier um tonton maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Sénégal Buzz 221 Euh, maa ngi lay fay bu baax euh, maa ngi lay fay bu baax jërëjëf. Euh, tonton tey ñu ñëw fekk la sa buntu atelier ngay ngay def yooyu noonu nekk sama ginnaaw waaye tonton tey dafa am loo xamante ne dañ koy waxtaanee mu di violence ak viol faite aux femmes bi temps yi ni mu bëree violence bi. koo gis mi ngi door jabaram ñii di rey seen jabar ak seen partenaire ak yooyu en tant que kilifa naka nga gisee loolu. man de yaakaar naa ne kii rey jabaram toujours dafa àndul la conscience mais nag ko ànd ak sa conscience waruloo mën a rey sa jabar ndax it man saa si la dama xool xool naa ba xool waaye dëgg-dëgg euh, ñii rey seen jabar daal dañ dañ leen a war a punir durement dañ leen a war a loi bi ñu war a Sénégal mooy ku rey ñu rey la pour finir ndax loolu rek lañ fi mën a def pour peine bi sax ndax ku rey ñu rey la loolu rek lañ mën a def pour peine bi sax daal loolu loolu laa gis ne loolu lañ fi war a indiwaat peine de mort daal bu ñëwaatut dara du fi jag ndax it boo xoolee ba xool ko dangay gis kuy rey nit te du mujj fenn ñi ni assassiné du mujj fenn kon nag ku rey ñu rey la daal loolu daal yaakaar naa moo war a am te it loolu la ñuy ñaan état bi ñoom ñu see ko appliqué. Mhm. tonton ñu ngi lay euh, ñu ngi nuyu. waaye ñoo ngi leen di fay. yaa ngi ci jàmm. sant bu wér. waaw bañal tàllal loxo rek. noonu la lay baax incha allah bu soobee Maulana. Euh, sëñ bit ñuy waxtaanee loo xamante ne mun naa ne temps yi dafa lëmbee dëkk bi muy ñi nga xamante ne dañuy violer jigéen ñi ñi di leen door di leen rey naka ñu gisee phénomène boobu. ah loolu xaw na doy waar de dëkk bee catastrophe rek soxna yi xaw a doy waar góor yàlla itam yi am naqaru xor rek waaw mais nag rey nag mën na ñàkk mën na ñàkk mais soxna yi nañ bàyyi mbaraan wi waaw. paa yu ñàkk fayda yi tamit nekk ay nit ñàkk nañ fayda torop xale dañ agressif seen colin gi dinañ dem nag ba mujjum jamono na ma yàlla jéggal dinañu violé jigéen ci mbedd ndax colin gi bisimilah. mais est-ce que tey jii raison la ngay sëyeeg sa jabar jékki-jékki saa am benn melokaan bu mu la wan wala leen loo xamante ne mi ngi la koy def mu war laa metti ba nga ba nga war koo faat faat ba kenam. waaw xam nga léegi ah, jamono bi dafa yéeme. de telle sorte que ni nit ñi lu ne la ñuy dundee xam nga léegi li tubaab bi di def ci film yi moom la nit ñi di dund fii Galsen du si Sénégal rek ah partout dans le monde actuellement mais daf fi dañ ko xamewul woon fii nag par contre moo tax mu xaw ñu jaaxal parce que tàmmuñu ko mosuñu ko gis donc bu amee day nekk loo xamante day impressionné ñëpp mais yéeme na daal nañ ci yàlla suturaal rek delloowaat xel yi waaw parce que sëy bañ koy tam du wax tamit waxuñu ngay finnaal sa jëkkër wala sa jëkkër tamit waxuñu ngay finnaal sa sa jabar ba yooyu yëpp ci am ñu ngi lay jaajëfal. jërë ngeen jëf. jamono ji si média yi viol yi dañ koy ñaawlu quoi ñu ngi rafet parce que tey jigéen mën nga melokaan boo xam ne boo xoolee sa yaay wala sa sœur waroo am benn mauvais sentiment ci moom ba ñu ko rey jël arme bi ko jëmal ci man waaw loolu moom dañ koy ñaawlu baax a baax. waaw rey bi moom état bi mën ci mën a dimbali mën a dimbalee mooy que euh, jël ci ay mesures yu mat sëkk jël sa mesure weesuwul tey nga ñëw fekk jàpp nit ci kuy rey xam nga ku ñu woo ko nga jël ko di ko dugal di ko dundal di ko jox muy nekk di ko jox muy naan c'est bien bon nit nit dafa mën a doon erreur dafay am mais ci mën daal ci gis-gis bu daal état moo si mën a jël mesure yu mat sëkk punition yi di sévère mais pas ku rey ñu rey la mais daf punition yi sévère voilà ci peine yi quoi.

beneen dégg ak beneen ba mook borom mook borom biñ biñ niroo xam nga loolu mooy loolu mais état bu jël ay matuwaay yu mot sëg daal yaakaar naa yu bëri dina wàññi ñaari men wax ca war a egg ba kenn ki ray ah loolu moom ah, de a bëgg a xamante ne ah rêvé naa leen toog ay dóor wala ay yooyu noonu. naxante bi bëre wala ñàkk waxante dëgg. waaw mais du naxante sax ñàkk waxante dëgg sax mais dama defe ne nit boo dundee moom ba dem ba bëggatoo ko. ñu ngi lay maa ngi leen di fay. yaay boo ci ne sant yàlla bu baax bu doolee ma jën. yàlla na sax yaay booy naka nga gisee violence bi nga xamante ne dafa bëri ci dëkk bi fi mu toll nii ray bi ak viol bi naka nga ko gise waaw rey bi ak viol bi métti na trop fa fu métti di yem waaye nag ci ñaari côté yëpp laay waxee comme kaa bam tey suba xalaas man de sama wàll laa mën a waxee daal en tant que jigéen ku gor ki man laa àndal dara fa métti bitim réew métti na métti goo xam ne ko bëggul bu lekk xaalisam xale góor ñi nga sa dëkk da àll ba di liggéey mu sedde bu mu métti lool muy tàng muy métti lool. nit ki boo ko bu bul jot dërëmam mënul liggéey fukki at ñu yàqal ko ko ci benn bés neexu ci xol viol bi nag métti na ci côté jigéen ñi métti ci côté góor ñi ndax jigéen ñaa ngi violé góor ñaa ngi violé comme boog ñëpp a yem ku rey ñàkk ñu ngi ñaan yàlla suñu borom nag yàlla ko fi jëlee ak jàmm ak salaam waaw loolu laa ci xam man. mais nag at mi ni mu gën a fasee mooy ñaan ñi nga xamante ne ñooy sëy ñoo ñoo ëpp maanaam lu ñuy rayanteeg yooyu naka nga gisee loolu. waaw loolu moom métti na trop ndax couple moom waxuñu ci ngay rayante day ñaan ñu bëggante dañu war a muñalante mais rey bi moom at mi moom musul am ci adduna bi ba adduna ba santee njaay ba tey rey bi am ren ji musul to am rajo yaa ngi wax télé yaa ngi wax li xaw ma mbugalu yàlla la xaw ke xamul lan la ndax li ñu rey ci ren ci nit yàlla reyu ko ci nit ëpp na ëpp na metti na métti na si jigéen ñi métti na ci góor ñi ñu ngi naan suñu boppam daal yàlla na ko fi jëlee ak jàmm ak salaam yàlla ñu teg bi si yoonu siraatal mustaqiima rey bi jóge fi nit dañ demoo dañ demaat si diine ji daal diine ji ndax li yëpp ñàkk diine moo ko waral ñàkk gu tar gi moo waral li reyante bi yëpp alalo àdduna waaw li yëpp alalu àdduna moo ko waral ñu ngi ñaan suñu borom yal ñu xiir ci boppam ñu gën a jege suñu borom ndax li yëpp dara alal rek moo ko waral ndax rey boo fi dégg rek naax posateen la jël ak fukki dërëmam la jël ak juróomi dërëm la jël ak ñaari couple fukk dërëm la doon xeex yoo xam ne jaru ko fi ñu rey ci bakkan jaru ko fi ko bëgg ñu ñaan suñu borom daal yal nañu yaay xiira ci boppam gën ñu ci xiir ñu duggaat ci diine l'islam ndax bañ génnee ci diine l'islam la ñu mbugal bi yëpp a topp li am yëpp ñàkk diine ko waral du dara nag waa ngeen baal ma àq wa ma maa ci d'accord bu baax ku rey nan la rey ku sàcc nan dagg sa loxo ndax dafa neexul liggéey sa alal fu kaat ñu rey la ci benn bés ndax juróomi dërëm ku sàcc dagg sa loxo l'islam li mu wax yàllaa ko wax yàlla soxul yàlla dafa baax ku rey nan la rey amutuj kasa de ku rey nan la rey wax ji jeex wa